mbokk alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ñu ngi santaat suñu boroom subhanahu wa taala ci dajawaat ci am néegam ngëree jël benn bind ca la nga xamee ne mooy leeral diineem ñu koy tuddee lii nga xam ne mooy fiq tey jii moom mooy ñaar fukkeelu fan ak juróom benn ci weeru décembre di dëppoog la nga xam ne mooy ñaar fukki fan ak benn ci jumaadal ula ci la nga xamee ne nii mooy atum 1443 te ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gàddaaye ñu ngi nekkoon ci li ñu tuddee ahkaamul janaiz mooy atte yi aju ci nit ki buy waaj a faatu ak bu faatoo ba pare lan mooy la nga xam ne moo ko war ak la nga xam ne moo war ay mbokkam ñu jëloon ci juróom benn bind war a tey jël juróom ñaareelu bind bi muy jawaazu itixaazil mahajiri sixiya ngi noonu ahkaamul janaiz boo xoolee bind yi yi ca tegaloo nga xool ci juróom ki ci page waa deux cent vingt-trois bu dee mool bu bees bi noom bu dee bokk nañ ko gis day wax ni yajuuzu bal yustahabbu mu ne mooy lu mën a nekk la bal dañ koo sopp sax an yuj'ala ashaabul amraadil mu'addiya fi janaahin xaasin min al mustashfiyaat mooy ñu daal di boole ña nga xam ne dañoo am feebar yuy wàlle ci benn pavillon spécial ca biir hôpitaux ya wa an yumna al asixaau min al min altisaali bihim siwa mumarridihim mumarridihim gannaaw ba ñuy tere ña nga xam ne dañoo wér ñuy jokkoo ak ñoom lu dul ña nga xam ni ñoo ñëw di leen di faj li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam li ashaabil ibil yonent bi daana wax ña doon sàmm giléem ya mu ne wala yuwarridu almumarridu ala almusixu ala almusixin ngallawaay ka nga xam ne daa yor giléem yu feebar bu mu dem di ka tabbal ca giléem yu wér ya borom giléem yu wér ya fa ida kaana haza fi lxayawaan bu dee ne lii dañ koy digle ca bàyyima ya fa fi l insaani min baabil ula ci doomu aadama yi day ñoo gën a yey ci loolu waaw kon mbokk fii day wax rek day am feebar yoo xam ni day wàllaate su ko defee loolee dañ leen war a ber li fi jiitu woon mooy lu mel ni tuberculose bu doon jamonoy tubaab yi maladie infectieuse daawuñu nangu ku fa dugg xanaa lu dul ku ñu defal ay vaccin dem nañ nag ba tuberculose bu ñu tasaaroo waaye feebar bi ñu yàlla nattoo bu mujj bi muy corona yéen ñépp xam ngeen ni fañ leen doon denc ci hôpitaux yi dalal jàmmalam feneen ak feneen sa mbokk yi la gën a jege daawuñu nangu nga ñu dugg fa du sa doom du sa soxna bañ demee ba maîtriser feebar bi sax ca lañ ko woyofal waaye kon loolu mu ni bu dee feebar yoo xam ne daa gaaw a wàlle ñam dal nañ leen ber ci benn place faj leen ba ñu wér lu tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da doon wax ñi nga xam ni seeni giléem ay feebar da caa nekk te loolu bés ba na nga dégg ko Sénégal feebar yu ne daa dal ci nag yi wala daa dal ci fas yi wala daa dal ci ganaar yi mu ne nag koo xam ni feebar daa déclaré ci biir gileemam galawaay gileem yooyu bu mu leen jël di leen dugal te gileem ya nga xam ne dara dalu leen boo xoolee sa téere mu ne wa li qawli sallallahu alayhi wa alihi wa sallam attaa'uun mi ngi noonu fi taa'uun la yonent bi waxoon ci li nga xam ne dañ koy tuddee peste ida waqaa bi ardin wa antum biha fala tuxriju minha su dee peste boobee daa dal ci dëkk te fekk yéene nga fa ngallaway bu leen génn dëkk ba wa ida waqaa bi ardin wa lastum biha su dee daa dal ci dëkk te nekku leen fa fala tahbitu alayha ngallaway bu leen wàcc ci dëkk boobee lii mbokk day wañu ne muhammadu rasulullah aman ma yonent bi yàlla bi ndax li ñuy tudde tey porteur saint loolee ba ko médecine xamee yàggul ndekete feebar mën naa nekk fii yow feebar bi nga jël virus bi mu nekk sa yaram dara dalu la nga yóbbu ko feneen wàllu ko ñeneen ñooñu feebar dee yow moom dara du la dal gis ngeen loolu nag yàlla xamaloon na ko ab yonentam ba muy koy ba muy wax ni bu ngeen déggee peste ci dëkk fekk yéen a nga fa bu leen génn dëkk bi ndax wóoru la ndax yóbbaale woo la nga xam ne mooy virus boobee amma yéen ñi nekkuloon foofu ngalawaay bu leen fa dugg mu ne wa ama qawluhu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam laa adwa wala tiira la yonent bi waxit ne ak wàllaate amul lii di gaafit amul fa maanaahu laa adwa muassiratun bi nafsiha maanaam mooy ak wàllaate du jeexital ci boppam ay bi duuni iradatillahi zalik bu dee ne loolee du mën a nekk lu dul yàlla subhanahu wa taala moo ko namm is la yaqa'u fi mulkillah ndax dara du dal ci nguurug yàlla gi maa la yuridu lu dul yàlla bëgg wa haada gayru maani'in min min ittixaasi sabab alwiqaaya loolu nag du tee ñuy jël sabab ya nga xam ne danañu mën a musal te feebar ya mi ngi noonu ma a itiqaad ànd ak nga ànd ak pas-pas an la waaqiya illa allah ne kenn du mën a fegle ku dul yàlla wa anna lazi la yaqihi allah ka nga xam ne yàlla fegu ko laa yumkinu an yuslima du yey mukk mu daal di doon koy mucc waqad su'ila sallallahu alayhi wa sallam anil jamalil ajrab bañ ko laajee waaw lu tax giléem gu ràmm mën a ànd ak yeneen giléem daal di leen di wàll fa qaala man aadal awal awal mu ne waaw kan moo wàll giléem gu njëkk ga fa axbara sallallahu alayhi wa sallam anna taasira lillahi waxda na jeexital yàlla kese lay ñeel wa anna ma shaa kaana wa ma lam yasha lam yakun li neex yàlla mooy am li ko neexul du am mbokk yu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dane nañu xam ni ak wàllaate amul loolu nañu koy déggee mooy du ne feebar am na kàttanu ku ko jege rek mu wàllalu ko loolu amul te bokk na ci loo xam ne corona bi jàngal nañu ko da ngay dégg ñu ne lu ñuy tuddee ay cas contact def nañ mille test ci ay cas contact cas yooyu yépp bañ leen testé ñu ne masalan cinquante moo ci am feebar bi am déet mu am yeneen cas yu ñu déclaré na ñoom dañoo feebar te xamuñu fu ñu ko jëlee de bés mën a ngeen dégg ko de muy cas communautaire loolee kon day wone ne nekk ko feebar ci benn lal taxul feebar bi dal la ana ñaata góor lañ wax ñooy fi corona ba corona rey leen ci seen soxna mus la corona lu bari na ana ñaata nit ñoo corona ci xamuñu ku leen ko wàll loolu nag teewul yow jullit nga jël say sabab waaye nag gëm ne sabab yi du la muccal gëm na it jege ko feebar du la feebarloo yàlla mooy dogal loolu tax saxaaba yi bi ñëwee ñu ne ko waaw mais yow yàlla yónni dañuy gis giléem gu feebar ñu boole ko yu wér feebar bi dal leen kon kay xanaa moom moo tax feebar bi dal leen yonent bi ne waaw gilim gi jëkk a feebar kan moo ko ko wàll gaa yi ki jëkk a corona ko wàllu corona gis ngeen loolu ci yàlla lu jóge looloo tax jullit ñaar yi ngay boole soo mënee ñakku ñakkul takkal masque defal lu nekk waaye gëmal ne yàlla dong ciy mucc le yàlla dong ciy mucc le mi ngi noonu teewul nag nga jël say sabab loolu mooy la nga xam ne moom la jullit war a gëm ci mbir yoo bare bare bari la doon loolu faju la ci feebar sakku wërsëg la lu mu mën a doon da ngay xam ne yàllay wërsëgal yàllay wéral sabab bi da nga koy def waaye doo ko gëm doo ko sukkandikoo doo gëm mukk na sabab bi moo lay muccal mi ngi noonu loolee kon la wax ci wàllu matukaay yi ñu war a jël ci wàllu feebar gannaaw ba nag juróom-ñetteelu bunt bi mooy wujubu iyaadatil marid wareefu dem seeti aji ku feebar yajibu alal muslim iyaadatu axiihi al muslim ida marida wareef la ci julit mu seeti mbokkum julitam bu dee daa feebar li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam atimul jaa'i ewaay bu ngeen yégee kenn ku xiif ci yéen may leen ko lu mu lekk wa uudul marid su ngeen amee ku feebar ci yéen seeti leen ko wa fakkul aani al asir su ngeen amee seen kenn koo xam ne dañ koo jàpp jaam fexe leen goreel ko mi ngi noonu wa yustahabu lahu ida aadahu fi maradihi sopp nañ ñeel ko bu ko seetee ca feebaram ba an yad'uwa lahu bi shifaa mooy mu ñaanal ko yàlla saafara ko wa an yuusiyahu bi sabr mu ñaa mu daal di koy dénk la nga xam ne mooy ak muñ wa an yaquula lahu maa maa yati maa yutayibu bihi nafsa loo xam ne nii dana ko teeyalal bakkanam kama yustahabu lahu an laa yatiila juluusa indahu soppuñu mu yàggal toogaay ca moom wa kaana sallallahu alayhi wa sallam ida aada maridan qaal yonent bi adu mosaan seeti ku feebar danaan laa baas tahuurun insha allah ay lii day du dara laabal la rek bu la yàlla di laabal mi ngi noonu fal yaqul muslim zalika li axi julit nay wax loolu mbokkam julitam mbokk sa mbokk julit feebar nga yëg ko loolu wareef la nga dem seeti ko su dee ne seeti su dee ne ngant amul daa bokk ci juróom benn àq yi jullit yoral moroomam boo ko rombee nuyu ko bu ti soolee nga wax ko yarhamukallah su la woo nga wuy ju ko mi ngi noonu su sakkoo laayi biir nga laayu ko biir su feebaree nga seeti ko su dee nga gunge ko kon loolu wareef la lu dul ci ngant su dee yàlla dogal na nga dem di ko seeti ndax yonent bi alayhi salaam moom la ñuy seeti ñi feebar ca leel ñi xiif mu ne soo demee nga ñaanal ko ci na am mbokk ñaan googee yàlla subhaanahu wa taala mën na ko ca yëkkatee mooy liñ doon wax sànq ci feebar bi ci feebar da ngaa war a faju ji waaye bul gëm mukk ne médecin bi mooy faj wala garab gi ñu lay jox mooy faj loolu sabab la yàlla nag mooy faj loolu tax nga koy ñaanal yàlla subhanahu wa taala saafara ko am na wax du ñuy wax ci téere bani israila yi donte ne ni yonent bi alei salatu wasalaam daanañu wax ne mën nañoo wax seeni wax lu dul ni lu ca alxuraan fejjalewul duñ ko gëm waaye nag duñ ko weddi ñu ne yonent yàlla Muusa bañ bañ ba dee métte lool mu ne yàlla may sama bëñ bi waay wërsëgal ba mu wér suñu borom na ko boo demee ci xaan ci sàngam nga dagg ko sàqami ko bëñ bi dana sedd Moussa dem ci xànc bi sàqami rek bëñ bi sedd ñu toogaat ay temps beneen bëñ di metti waat Moussa daal di jubal ca xànc ga xànc sàqami ko rek bëñ bay gën a éclaté mu ne ah yàlla bëñ bi gën naa metti de mu ne ko ah Moussa kon da ngaa foog ak xànc moo lay faj loolu ak sabab la kon ñaan lu ci am solo la mooy ñaanal ko yàlla saafara ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci yeneen hadis daana wax ni ci fekk mbokkam jullit mu feebar mu ne maa ngi ñaan yàlla mu màgg mi boroom arash bu màgg ji ci musaafara la soo ko waxee juróom-ñaari yoon ci moom bu dul ne yàlla daa dogaloon feebar boobu moo koy rey yàlla dana ko saafara asalullah alazim rabb al arsh al azim an yashfiyak maa ngi ñaan yàlla mu màgg mi boroom arash ju màgg ji ci musaafara la naka noonu it am na ay yeneen façon ñaan mi ngi noonu comme la ci yonent bi tegit mooy dalalal xelam dalalal xelam bokk na ci ah lii du dara lii daloon li diw mi ngi noonu lii du dara nangam ak nangam da ko ah it yàlla it nii lay jaare nekk jaamam dafay laabal say bakkaar doonte ne mbokk suñ jamonoy tey ji it bokk na luy gën a dalal aji feebar mooy booy dem nga bàyyi fa dara am déet ndax ñi nga toll ci jamono joo xam ne uute nag suñ jamonoy bàyyi suñ bàyyi ku ci masaan feebar sa problème mooy ay sunguf ak i xànce ki yu kenn xamul rek ngay jël waaye tey ji da ngay dem hôpital salaamaaleykum ñu ne la scanner rajo ordonnance su vingt cinquante mille loolee koo xam ne loxoom jotul woon gannaawam ba pare charge yooyu ñu teg ko ko loolee day gën a yokk feebaram am déet day gën a yokk feebaram ngi noonu loolu ñu bàyyi ci xel bu baax képp koo xam ne sa mbokkum jullit feebar na soo koy seeti ngalawaay nga am loo fa bàyyi loolu kon moo aju ci wàllu googee ci wàllu berñe feebar ak seeti leen xam na su doon te ne ni am na laaj bu jëm ci ñaari bind yooyu ñu jéem koo leeral ba la ñuy jàll ca aji feebar ja lan mooy taxawaayam su dee amul it ñu jàll ci aju berñe feebar ak wàllaate bi ak saytu ko feebar naam ala kulli xaal kon ñu xam ne juróom-ñeenteelu bind bi mooy wujubu xusni zanni billahi xaalal marad xam leen ni lii mooy wareefu rafet njortu ci jamono ji nga feebare yanbaxi lil muslim ida marida wa ashrafa heure bu dee feebar mu dem ba yëg ne moom ko tim nag dee an yuxsina zanna billahi taala mooy mu rafetal njortu ci yàlla mu màgg mi min annahu subhanahu sawfa yarhamuhu ci ne day yàlla dana ko yërëm wala yuazibuhu te yàlla du ko mbugal wa yaxfiru lahu wala yuaxizuhu yàlla dana ko baal te yàlla du ko jàpp wa annahu waasiul maxfira mu gëm ne yàlla ko yaa njéggal la wa rahmatuhu wasiat kulla cheyin mu xam ne yërmaandeem ba gën naa yaatu lépp lu mën a doon li qawlihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam laa yamuutanna ahadukum ba mu dee mukk kenn ci yéen illa wa huwa yuxsinu billahi zan lu dul ni mi ngi rafet njort ci yàlla bokk julit doomu aadama boy dund da nga war a boole ñaar mooy ragal mbugalum yàlla yaakaar yërmande yàlla ci loolu nga war a taxaw su mel ne ibnul qayim rahimahullah daana wax jullit day ma picc yem nee na looy gis ci moom mooy bopp ba jiitu ak ñaari laafiya nee na bopp ba jiitu mooy bëgg gi nga bëgg yàlla jëm ci moom waaye lan moo la fa yóbbu mooy laafu yaakaar yaakaar yàlla ak ragal yàlla képp koo xam ne génn nga sa yaakaar ci yàlla texe nga wa man yaqnatu min rab- rahmati rabbihi illa daalun fokk julit doo dem mukk ba jàpp ni li ma def ci bàkkaar man alkuna safara rek laa jëm loolu lu dangereux la waaye nag doo naagu ci dogg ne ah man garaawul man àjjana rek laa jëm déedéet da ngay boole ragal yàlla ak yaakaar yàlla amma nag boo demee ba jàpp ne mënatumaa def dara léegi yaa ngi sukuraat mënatoo def dara su boobaa dañ naan notolal yaakaar yàlla notolal yërmande yàlla ndax léegi moom c'est fini mënatoo def dara kon notolal yërmande yàlla ci yow yonent bi alayhi salaam daan wax kenn ci yéen buy faatu na faatuwaale yaakaar yàlla xam ne kat sama dund gi samay bàkkaar bëri na ci waaye jéggul yàllaa ko ëpp càggante yi bëri na ci waaye yërmande yàllaa ko gën a yaatu ila axiri ngiree nga dee yàlla rafet njort boobee loolu moom la ñu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam santoon bu dee fukkeelu bind bi mooy talqiinul mayit gaaral aji dee la nga xamee ne nii mooy kaddug la kaddug la ilaha illallah yanbaghi lil muslim ida aayana ixtidaara axiihi day yey ci julit su demee ba ràññee gis ne kat sama doomu ndey bii day mi ngi ci sukuraat an yulaqinahu kalimatal ixlaas mooy mu gaaral ko lii nga xam ni ah mooy kaddug ixlaas mu fexe ba waxloo ko ko fa yaquula indahu laa ilaha illa allah mooy muy wax ca moom laa ilaha illa allah yuzakkiruhu biha xatta yazkuraha wa yaqulaha mu koy fàttali loolu ba baa mu koy fàttali ko ba wax ko fa ida qaalaha kuffa anhu heure bu ko waxee ñu bàyyi ko wa in huwa takallama bi kalaamin gayraha heure bu aji feebar ji waxee beneen wax bu dul laa ilaha illallah aada talqiinahu ñu delloowaat gaaral gañ ko koy gaaral rajaa an yakuna axira kalaamihi ngiree ñuy yaakaar mu nekk mujj kàddoom mooy laa ilaha illallah fa yadxula aljanna mu daal di tabbi aljanna li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam laqinu mawtaakum laa ilaha illallah fexe leen bay gaaral di waxloo seen aji deey léegi laa ilaha illa allah wa qawlihi man kaana axiru kalaamihi laa ilaha illa allah daxala aljanna koo xam ne sa mujjeelu kaddu mooy laa ilaha illa allah dafay daal di tàbbi aljanna mbokk jullit bi heure bu demee ba nekk ci sukuraat ca ñi nga xam ne dañoo yàgg gis ko dee dañ koy xam su booba nit ki aji feebar ji lu ci bëri xelam sax du mat ci moom à cent pour cent waaye war nañoo fexe gaaral ko mu wax laa ilaha illallah am na nag lu bëri ci borom xam-xam dañu naan doo ko wax diw waxal laa ilaha illallah da ngay toog ci wetam rek di wax laa ilaha illallah ngir bu ko déggee répété ko waaye nag day bu ñu xoolee tegtal ya gën a dëgër insha allah mooy da nga naan ko diw waxal laa ilaha illallah ku mel ne Cheikh Nasrul Albani ci téeréem bu màgg boobee tudd ahkamul janais loolee la cay défendre yonent bi alayhi salaatu wasalaam keroog ba abi taalib di faat daa ñëw na ko ay suma baay waxal laa ilaha illallah ma dëgg ci ngiree man laa ramm ëllëgamal qiyaama yàlla nañu yàlla musal ci àndandoo yu bon ma fekk fa ñoom abi jahal ak saay saay soos ñu ne ko ah abi taalib da ngay bàyyi bay day di saalit di bàyyi sa diine yi bàyyi abdul muttalib mu ne laa ala millati abdul muttalib maa ngi dee yaa millatu abdul muttalib dem naari jahannam gis ngeen waaye bu waxoon laa ilaha illallah day dem aljanna yonent bi alayhi salaam amoon na benn booy yahud bu doon nekk këram doon ko defal yenn travaux yonent bi dégg daa feebar yonent bi sol daalam dem seeti ko loolu it mu ñuy wan liñ doon wax sànq saytu ko feebar mooy bu dee jullite dañ naan wareef la waaye même bu dee yéefere sopp nañ ko su dee seeti googee dana ko xemmem loolu islaam da nga te mën a profité pour ñaax ko ci lislaam bi yonent bi ñëwee gis ne xale bii kat soriwul dee mu ne ko ay ngóor si waxal laa ilaha illallah muhammadu rasulullah xale bi gestu xol baay bi comme yahud yi ñoo gënoon a xam ne muhammadu rasulullah rëy doo nga tax nanguñ ko topp te yërëm na doom ji mu ne ko waxal lii la abul qasim wax xale bi ne laa ilaha illallah muhammadu rasulullah bi mu faatoo yonent bi gëñ na sahaaba yi maa ngi sant yàlla mi ko musala ci man ci sawar jël leen ko ngeen jël ko ñu jullee ko kon daga naan ko diw góor ak jigéen waxal laa ilaha illallah su ko waxee ñépp noppi su waxee beneen wax ñu gaaralaat ko ko waxal laa ilaha illallah ngiree mu faatuwaale la nga xam ne mooy laa ilaha illallah waaye boo demee ci dëkk yi nga xam ne dañoo yor yarul islam médecin yi fa nekk dañ leen a formé ci diine nga xam ne képp kuñ gis ngay sukuraat daal la fexe wax loo laa ilaha illallah dañ ciy nettali lu yu bari am na ci koo xam ne day nettali benn waay bi mu tiim naan ko ay saabaay waxal laa ilaha illallah mu ne ko doom li ngay wax xam naa ko waaye làmmiñ bi mënu ko wax noonu la dee yàlla mi nga noonu am na ci koo xam ne nee na bi mu tiimee góor ga ne ko góor gi ne ko laa ilaha illallah mu ne ko waaw sëñ bi yow sa laa ilaha illallah bi dafa gaaw da nga naan laa ilaha illallah rek faatu yaa ngi dégg gis nga loolu yëpp ay témoignage yu bari te it loolu dalay wan ni bokk na lu lay dimbali ci laa ilaha illallah bay faatu mu nekkoon loo gëm nekkoon lu taq it ci saw lammi loolu la ñuy bàyyi ci xel bu wax amma bu dee fukkeelu bind bi ak benn mooy tawjihul muhtadar ila al qibla mooy ka nga xam ne dee da koo teewe ngallaawaay suñu mënee jubal ko ci xibla yanbahi an yuwajjiha al muhtadir wa huwa alladi zaharat alayhi alamatul mawt mooy ka nga xam ne daa teewe ci moom lii nga xam ne nii mooy mandargay dee ñu jubal ko ilal xibla mooy mu daal di dem di jàkkaarloo xibla ala shiqihil ayman mu tëdde ca loxam day jooram jublu qibla wa in lam yumkin fa mustaqliyan ala zahrihi wa rijlahu ila al qibla su dee munta tëdde loxo ndey jooram jublu qibla comme ni muy tëdde ca bàmmeel ba kon ñu jaaxaanal ko ay tànkam jublu qibla wa nishtadat wa in ishtadat bihi sakaratul mawt suñ demee ba yëg ne mi nga tar ci moom sukuraat bi quri'at alayhi suratu yasin ñu daal di jàng ci moom suratu yasin rajaa an yuxaffifa allahu taala anhu bi barakatiha ngiree yaakaar yàlla wayefal sukuraat bi ci barkam njàng moom yi li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam ma min mayitin yamut fa tuqra'u indahu yasin illa hawwana allahu alayhi mu ne amul benn aji dee juy dee joo xamee ne nii dañ koo jàngal yasin lu dul ni yàlla dana ko woye fa doonte ne boo xoolee sa téere ca suuf dalay wan ne xadis boobu xadis bi wérul la xadis wérul la muy xadisu daif am na yeneen xadis yu bari yu ci ñëw moo tax sunu mag ñi kuy sukuraat ñu ne nañ ko woo ko ko jàngal yaasin sa delloon tafsir ibnu kasir indi na ci ay xadis yu bari waaye danaan xadis yooyu yëpp dara wéru ci bokk na daal expérience boo xam ne borom xam-xam yi amoon nañ ko muy bari na ay mbir yu jafe buñ ca jàngee suratu yaasin yàlla yombal ko ku koy def kon da koy def ci wàllu googee waaye nag lu wér ne yonent bi moo digle na jàngaleen yaasin loole moom xadise ca rot nekkul loo xam ne nii lu wér la waaye liñ jëkk a wax moom ñu bañ koo sàggane ca fexe ko waxloo la nga xam ne nii moom mooy laa ilaha illa allah te it ñu jàngal ko njaboot gi ngalla waay benn waay ñu ngi doon nettali benn témoignage bu daw yaram benn accident bu mu fekkee accident bi ni mu grave ñu bari ci kanamam lañ dee mais nee na xawma lu man ñaata nit kam te dégg mu naan laa ilaha illallah xawma ak subhanallah bu ñu ma tee ñaar ca la yem nettali si yëpp ñu naan yaa cheikh yaa sama ndey yaa sama nangam ba noonu la ñu deeyee la am mbokk julit julit dañu ko war a jàngal heure bu ne catastrophe na tël mu ne laa ilaha illallah wala mu ne subhanallah mi ngi noonu te it léeg-léeg it ñu moytu seytaane jaamu yàlla ya gën a kawe su fex su su jéemee ba mënulu koo tere la muy def mooy yàqu ak a bari ñooy toogal bu ñu yéem rek ne laa ilaah mbokk laa ilaah mooy kaddu gi gën a bon gu doomu aadama di wax ci kaw suuf loolu mooy kaddu ate ate communiste yi mooy yàlla amul amul lenn lu ñu war a jaam waaw laa ilaah déedéet laa ilaha illa allah kenn yeyowul ñu koy jaamu ku dul yàlla loole ku ko deeyaale dem aljana yonent bi alayhi salaam daana wax képp koo xam ne ba ngay dee yaa ngay woo keneen ku dul yàlla ku mel noonu safara nga jëm ku mel noonu safara nga jëm nekk lañ ma ci histoire bu triste fii ci boori Louga ndaw soo xam ne ba baa nga toj ma ngay waaj a dee waaye mu nga naan ey waay sëñ diw ey wal sëñ diw ey waay sëñ diw loolu lu mujj wax ci ci ci kaddoo loolee mbokk ay yar la yoo xam ne ku nekk ci ñun war na góor góorlu jéem ci laaye biir njabootam ak keneen kum ci mën a laaye biir amma bind bi ci mujj mooy taxmiidu aynayhi wa tasjiyatuhu mooy ñu fexe ba ki nga xam ne daa faatu ñu delloo ay bëtam daal di koy sang ida faadat ruuxul muslim suñu demee ba mu daal di génn wàcc la nga xam ne mooy ruuxuk julit wajaba taxmiidu aynayhi day war ñu daal di muur ay bëtam delloo ko mi ngi noonu wa sitruhu bi xitaain ñu sutural yaramam yépp ci kiiraay wa an laa yuqaala indahu illa xayra te it ñu bañ a wax ci moom lu dul loo xam ne aw yiw la mi ngi noonu mbokk jullit heure boo xamee ni nii naam dana ko wax ci kanam sax ala kulli xaal bokk na ci sa mbokk jullit boo xam ne dafa faatu ñaan goo xam ne da nga ko ko war a ñaanal te loolu it ñu tàmm ko soo déggee sa mbokk jullit mu faatu wala nga fekk muy faatu ngalla waay da nga koo war a ñaanal ñaan googee mooy la cay la cay tënk mooy allahuma ixfir lahu allahuma arhamhu boo yégee ne faatu na rek ay yàlla yàlla na nga ko jéggal yàlla na nga ko yërëm ndax kat képp ko faatu àllaaxiram commencé na bu dee mbég ak xéewal ma ngi koy commencé yéeg malaaka yi di ko bégal waaye bu dee ak coono jaaruloon fu neex yàlla balde yaa ngay dara xas ya ko malaaka yi di xas kon da nga koy ñaanal allahuma ixfir la allahuma irhamhu li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam ida xadartum almarida aw almayit su ngeen teewee aji feebar am riwaaya buy wax bu ngeen teewee aji dee fa quulu xayra bu leen wax lu dul la nga xamee ne nii moom mooy aw yiw bu leen wax lu dul la nga xam ne mooy yiw fa inna almalaikata yuamminuuna ala ma taquluun ndax fi waa ji faatoo lu ngeen wax rek malaaka yi na amin looloo tax ñu war a yar njaboot gi wuy alkuna wuy fu ma jëm wuy nangam nangam laa loolee mbokk mën na laa alak amma soo ko ñaanalee yàlla dellu ci yàlla ñaan yàlla te wuutal lu ko gën loolee ñaan gu yàlla di nangu la man nga cee jël rek na am li muy nar a wax ci abi salama mu ne wa daxala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ala abi salama duggoon na yonent bi alayhi salaam ci abi salama wa qad shaqa basaruhu fekk bëtam yaa ngi ubbeeku ay faatu na indama maata ba abu salama gaañoo fa ahmadahu yonent bi delloo bët ya suma qaal inna ruuxa ida qubida tabi'ahu albasar mu ne ruux day buy génn bët bi day nekk di ko xool muy dem loola tax kii faatu ay bëtam di ubbeeku ca ruux gi buy génn da koy gis borom xam-xam yi uute nañ ci ruux am na ñu ne ruux dafa mel ne takk ndeer dafa yor melokaanu jëmm ji la moom la nekk ci jëmm ji yëpp ndax ci jëmm jëpp lay dugg loolu moom mooy ruux doonte ne la gën a mucc ayib mooy ruux min amri rabbi yàlla moo gën a xam waaye doomu aadama bu ruuxam day génn mu gis malaaka yi di génn ruux yi da koy topp di ko xool ñuy dem loole moo tax bët yi di ubbeeku yonent bi delloo bët yi abi salama mu bokk ci saxaaba yi jëkk a gàddaay mi ngi noonu soxnaam satu doon ummu salama nee na bi loolu amee fa dajja naasu min ahlihi noonu la commencé rek yuuxu la nga xamee ni nii mooy njabootam fa qaala laa tad'u ala anfusikum illa bi xayr yonent ba na leen bu leen ñaan ci seen bakkan lu dul yiw fa inna al malaikata yu'minuuna ala ma taquluun malaaka yi day ñi ngi wax amiin ci lépp loo xam ne da ngeen koy wax ca boo delloo ci yeneen riwaaya suñu yaay ummu salama abi salama bi moo nekkoon borom këram jamono bi muy faar nee na dama toogoon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ay waxtaanam ma dégg mu ne ke nattu dal ci kawam mu ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un allahumma ajurni fi musibati wa axlif li xayran minha mu ne képp koo xam ne bi ko nattu dalee daf la ñun dey yàlla ñi moom ci yàlla la ñuy dellu yàlla yàlla na nga ma bindal ab yool ci musiba bii ma dal ca wuutal ma lu ko gën nee na ñaan naa ñaan gi waaye maa ngi xalaat di xool sahabatul kiram ana kun ci mën a wax moo gën a abi salama muy wane rek daraja ya abi salama nekke woon radiyallahu anhu mais nee na ba ma muuroo ba dindi sama muuraay ca la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw labat ma boole ma ci ay soxnaam ca jàpp naa ne benn jullit amul droit ci sikk sàkka ne yonent bi alayhi salaam moo gën téeméeri abi salama am déet mi ngi noonu loolu it kon heure bu la nattu dale ñaanal yàlla mi ngi noonu ca it nga sant yàlla bokk na ci xutba bi fi passé mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne yàlla bu yónnee malaaka yi ne leen dem leen jëlal ma sama doomu jaam bi xam ngeen ne ñàkk lépp métti na waaye ñàkk doom ca yëg na métti la bokk nee na gannaaw ba dara leen la jël ngeen sama doomu jaam bi ñu ne ko waaw borom bi mu ne jël ngeen sama rotoxal bi mooy meññatu xolam jël ngeen ko mu ne waaw mu ne waaw lu mu wax ca moo leen gën a xam lañu wax malaaka yi ne ko ah xamidaka wastarjaa yàlla day bi mu yëgéen ne doom ji dee na daf la sant dellu ci yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni tabaxal leen ko kër ci àjjana ngeen tudde ko kërug cant gi loolu moo tax ba ku nekk ci ñun it di war a entraîner boppam mbokk ñun ay jaamu yàlla la natt mën nañoo bette fu nekk loolu moo tax ca ngërëmal yàlla mi ngi nekk ci natt bi fi mu beese benn soxna da yonent bi da ko romb ca armeel ya muy jooy yonent bi ñëw ne ko soxna si ragalal yàlla bàyyi li ngay def mu siggi na ko demal li ma dal dalaa dalul fekk jëkkëram moo dee mu tiim foofu am ku ñëw ne ko waaw yow yonent bi lu mu doon wax ak yow mu ne ko ah kii yonent yàlla bi la mu ne ko waaw rek ndaw si xër dem kër yonent bi fexe ba gis ko ne ko im yàlla yónni dama laa xàmmeewul woon yonent bi ne ko asabru inda sadmatil ula muñ nga yàlla gërëm di ca may fay yu bari mooy fa musiba bi dale ci bees waaye gis nga mbokk julit kër goo romb ñu ne bërëm kër ga dee na ñuy xar seen bopp ya di yooxoo ko kii jaaraat fa rek un mois après da ngay fekk ñëpp toog di waxtaan am déet kon doomu aadama moo mel noonu dañ ko tudde insan dafa gaaw a fàtte kon lay bi yàlla gërëm mooy fi natt bi dale ci kaw nga xam ne lii dee ci yàlla la jógee nga daal di ci sàkku ngërëmal yàlla su dee aji dee la nga ñaanal ko ñaanal sa bopp waxtu woowee day ñaan googee yàlla mën na ko caa jéggal yërëm ko ci yewit yàlla jagleel le yërmaande ba wuutalal la loo xam ne moo gën a màgg fa nga xam ne féete woon na la fa aji dee jooji di dee yal na yàlla woyefal suñuy nattu ci ñun yërëm suñu way dee yi may ñu xol bu muñ rafetal suñu dellu ci moom wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain tool bi ñu jagleel toolu jàkka loolee kenn du ci génn zakat ndax loolu du moomeelu kenn moomeelu borom bi la subhanahu wa taala loolu kenn du ci génn zakat mi ngi mel ne xaalis yi nga xam ne association yi dañ koy dajale jublu ci dimbali ci nit ñi loolee kenn du ci génn zakat zakat mooy loo xam ne nit ko da ko moom denc ko wala mu moom ko di ko yaxantalu mais da nga xamee ne nii dañ koo génne ba pare jagleel ko jaamu yàlla loolee moom daanaka lépp boo xoolee dem na ci zakat wallahu subhanahu wa taala alam naam naam ala kulli xaal mbokk mbokk yi baalu affaire dee yi ñu doon wax la gars yi ah waaw waaw waaw alhamdulilah waaw ñu ngi waaw alhamdulilah ñu ngi sant yàlla ci loolu ala kulli xaal mbokk kon mi ngi noonu su dee ni dama xamul temps bi julli gi moom des na xaw ma nag waaw ma ne julli gi moom julli gi moom dafa des waaw onze dafa des waaw waaw ala kulli xaal nañu xam ne waaleykum salaam wa rahmatulah barakaatu waaw mais moom kooku la muy daw ak la muy dabu ji moom kenn kooku li muy def xamu ko nee na yonent bi nee na wàllante amul waaw yonent bi moo ne wàllante amul mais yonent bi moo ne feebar fu mu nekk bu leen fa dugg lu tax mu bëgg a gëm leen li ba pare wedd li ci des loolee kon la nga xam ne mooy jël ay matukaay teewul nga gëm ne wàllante amul moo tax joxe nañ ci ay misaal yu bari ci biir dars bi mooy wàllante amul waaye bu dee médecins yi ñoom ci seen wàllu bopp nee nañu nit ki kat noyyi ga muy noyyeeg yenn tissoor yi muy tissoor yi soo ko dandee un mètre cinquante loolee mën nga caa mucc looloo tax partout commencé par Kaaba gu tëdd ga ak masjid nabawi yépp distance yooyu ñu ko doon respecté loolu taxul nga gëm ni respecté distance bi dana la musal waaye itamit da nga jëfandikoo la nga xam ne suñu borom moo ko wax borom bi mu ne xuzu xisrakum day leen jël seeni matukaay teewul wékku ci yàlla wallahu subhanahu wa taala alam naam am ala kulli xaal mbokk bokk na rek ci la nga xamee ne nii moom la ñuy xaarale waxtu bi su dee ne ay laaj dafa nekkul di am lii nga xamee ne nii mooy aji faatu heure boo xamee ne nii doomu aadama bi faatu na bokk na ci ay léeg-léeg dénkaane yoo xam ne nii dañ koy dénkaane ca loolu ku nekk ci war na koy bàyyi xel jamono ni muy yàqoo ah waaw mu ne waaw koo xam ne sa me- sa waajur moo ne la demal seeti médecin bu jigéen pour mu faj la te am nga médecin bu góor bu la mën a faj ah taxawaay bi mooy nga ne ko waajur bàyyil ma dem ci góor ke ke mën na ma faj loole bokk na suñu dars bi ñu génn dimanche passé dagan na góor faj jigéen su dee ne amul jigéen bu bu dee amul jigéen bu ko fa faj dagan na góor faj dogen na jigéen faj góor su amul góor bu ko fa faj waaye bu dee lii leen ndaw si nar a defal ku góor a kenee mën nga ko su boobaa da ngay dem ca ku góor ka amma nag ay digali waajur kenn du ko topp ci loo xam ne dañ naan dafay aju ci dagan ak haram loolu moom kenn du ci topp ndigalu waajur mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam ala kulli xaal ci liñ doon wax rek mooy léeg-léeg ay masala day ñëw ci wàllu faatu masalan doomu aadama bi mën nga waajal sa bopp ci xalaat ni def li ñuy tuddee wasiya wasiya bi mooy lan mooy benn moytuloo nit ñi lépp loo xam ne ni ay bidaa la ngal la waay bu ñu ko def suma gannaaw loole lu am solo loo xam ne ku nekk war na cee bàyyi xel xanaa ñu wax ci rek benn bu reetaanlu suñu mbokk sibi bi ñëw fii nee na benn xaritam seen famille dañoo bëgg ay dëj comme ni ko sama famille bëggee ñun ñëpp waaw nee na bi muy faatu mu ne benn mu benn xaritam bu mu nekkaloon biñ jógee armée li mu ñëw fekk kër yaa ngi fees dell ci jigéen mu ne waaw diw nag dama joxoon benn ndénkaane ma bëggoon ñëpp déglu ko nee na bis buñ ko suulee ba pare képp ku ñëw dajalo di toog fii yàlla bu mu la raw rek jigéen ñi falxaloo yaa ngi daj mi ngi noonu ñëpp falxaloo ala kulli xaal heure bu ñu koy waxit dañ fàttaliku benn kilifa gu nekkoon ci Dakar mooy Alaaji Maodo Sylla yàlla na ko yàlla yërëm waaw doomu aadama bu nekk ñàkkul ay njuumte yu nekk ca moom waaye nag bu defee lu baax ñu war koo wax Alaaji Maodo Sylla kenn xamul ñaata at mu nekk grand sëriñ de Dakar yàgg na ci lool ah mooy nekk grand grand grand imam mosquée Dakar grand imam mosquée Dakar yàlla dogal koo xam ne nii ku ma xam ku sus ci moom alaaji Maodo si laaw mi faatu soxnaam daa faatu soxnaam faatoo mu daal di profité ñu dem jël suuli ko yoof bi mu ñëwee mu ne mbooloo mi ki ñu fi taxoon na daje day suul nañ ko yoof dem leen ñibbi ña ñam waroon a may ay paas ay mbaaw ak yooyu mu jox leen ñu dem keroog ñëpp dem mu daal di bind moom bi mu sukkuraatee mu ne njabootam bis bu ma faatoo bu leen nekk di ma xaare benn mbooloo ñi fi daje nañ ñëw nañ ma jël suul ma buñ ma suulee bu fa kenn toog na ñëpp dem ca bu doon te ne rek da koo neex ab dëjëm mën naa juri une semaine Dakar gépp fees del loolee mbokk misaal la boo xam ne weres na koy fàttali ko fu ñu mën a toll ñu ngi noonu loolu di lu am solo yoo xam ne nii ci ay dénkaane la doomu aadama bi mën ngaa ut sa la nga xam ne moom lañ lay sànge bu la neexee nga prévoir ko loolee lislaam di ngay gis na bañu ko Abu Bakar Siddiq nee na njabootam sama turki bee day su ma faatoo dooli leen ci ñaar ngeen sànge ma ko ñu ne ko waaw te ñu la utal yu bees mu ne déet lu bees ña nga xam ne ñooy dund ñoo ko gën a yeyoo loolee itamit benn ci sahaaba yi yonente bi alayhi salaam génne nag benn mbubbam mu ne ko yum yàlla yi ne may ma mbubb bi yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne ko hakay dellu ci bitti lem mbubb bi indil ko sahaaba yi mer yaa gën a xam ne yonente bi du wax kenn déedéet yaa ngi dégg mu ne wallahi ñaanuma ko pour sol ko dama koo ñaan rek pour bu ma dee ñu sànge ma ko kon loolu tamit day gis mën naa nekk comme ni nga mën a batale diw na ma sang diw na ma julli la nga xamee ni nii wax na ko ci ixtidaar bi bokk na la ci gën a am solo mooy loo xam ne yàlla wax na ko leeral say bor leeral say dénkaane ci lépp loo xam ne ni bëgg nga ñu def ko sa gannaaw yooyu yépp da ngay gis ne islaam neenal leeralul ci yooyu dara loolee da ngay jullit war na koo bàyyi xel loo jàpp na it ni manes na koy def lu baax ci sa alal gannaaw ba nga dee loolu it suñu borom yàlla ubbil na la ko sa ceeru alal lu la neex dénkaane ci yii yëpp da ngay gis ni ki nga xam ne dem na ba yaakaaratul boppam war nay bàyyi xel ci mën a jëfandikoo lu mel noonu ala kulli xaal mbokku julit yal na yàlla rafetal suñu dund rafetal suñu daje ak moom wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain